alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lanal huda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida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 mu jëme woon ko ci euh, lu am solo muy yar ak teggin ni mu amee solo ci ab jullit Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne lu waaye di wut te wute ko yar ak teggin dana ko am lu waaye am te téyee ko yar ak teggin du ko ñàkk koo xam ne nag loo wut am ko te loo am dootoo ko ñàkk léegi nga bari la kon def leen ko muy seen alal loolu nag buñ delloo ci alquran dañuy fekk suñu borom di wax ne ëllëg yowmal xiyaam sax kenn rek fay jariñu muy ki nga xam ne nii jikkoom na waaye alal ak doom du fa jariña yowma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi xalbin salim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ maa yónni ngir ma mottali tedd ngay jikko yi Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar sax day wax ne yar ak teggin ko fonk ndax mooy koom mi gën àdduna ak alaaxira te it lépp lu nit di teddee teddee ci yar ak teggin moo ko gën wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru maxtasa bi du si delloo waxaat ne nit ki de bu ñàkkoon xam-xam sax wala mu bokk ci askan wu ñaaw bu amee yar ak teggin day doon mbalaanum sutura moom bu ko sàngoo kenn du ko xamal dara waxoo la si jaxale xosnal adabi yux fi jahalatan wa qubha nasabi dal ci daal wax ne nit ki bu amoon xam-xam bu dul jeex sax te amul yar ak i teggin xam-xam ba ci coonook musiba rek la koy jëmee fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal aza wa taabi moo tax daana wax ne moom sëriñ bi kër gi de lenn rek fi nekk ku ko yóbbu bàyyi woo fi dara waaye fi bàyyi yóbbu woo dara mu yar ki i teggin moo tax sañ bay jaxate daana wax ne amub yaray tax ñu xëy jël nit ne tegg ci kaw ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ci kaw di ko caw moo tax daana wax ne moom it sëñ bay jaxate mboolem lu dee fi jóg di wut yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yarul rek mata am ku yarul rek mata xam ku yaruwul matula am matula xam turam wa sax ab yar li tax amul morom day tax a gën fasay morom tey tax a gën fasa borom kala yarul rek la nax ku la mayoon junni it te jàppul ab yar jox la it léegi nga gis junni yorat waroom yar for ko te sax Eh, ku yoruwul matu la yar ku yoruwul matu la yor ku yoruwul alku nafar ku yebu faf tàbbal ko pax ab yar yemawul ak dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñàkkul dara sëriñ bi yàlla nanu ko jox ab yar la dee fi gëne nit ab yar la dee fi suti nit ab yar la dee fi rawi nit ne du alal ak rëyi yax kon jikko ju defaru rek mu am solo sëñ ba jaxate yi daan wax ba tey ne lay tax nga jiitu say morom tey ak ëllëg fa sa borom ba ñëpp naa amoo morom du nelaw ak lekk lu duuf fexe la am lu ak lu kenn amul te loola nag yàlla asal du kër yu jag du ay alal du soxna yu soqa ko foofu yéefar yi am nañuy alal te am na ñuy soxna ki njël yàlla la ab yéefar amul ak topp yàlla gu nangoof bari alal taxul a gën néewi alal taxul a bon lay tax nit ay gën a ko ban ca xol ba lay nëbboo ko boof kon yàlla na suñu borom defal